salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi gannaaw ba nu santee suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci ab yonentoom Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di sant asayqul qadim di ñaanal Cheikh Muhammadul taxa suñu boroom dëgëral ko te kattanal ko te wéral ko te defal ko mboolem xulafaa yi nga xam ni ñoo wuutu mag ñi fu ñu fi mën a nekk ci réew mi mbokk yi dellusiwaat nañ ci jotaay bi nga xam ni moom la ñuy baaxoo ànd ak yéen muy yóbbu lu màggal seen télévision bii nga xamante ni mooy Mouride TV ba tey ñu ngi waxtaane asayqul qadim wa sukru muy sëñ Tuubaa ak li nga xamante ni mooy sant mbokk yi Anas ibnu Malik radiallahu an jëli nañ ci moom mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla day dina gërëm jaam bi nga xamante ni dafa lekk ak lekk wala mu naan ak naan mu daal di sant yàlla waaw kooku sax suñu borom subhanahu wa taala da koy gërëm ci lan loolu nga xam ni moom la ko yàlla xéewaleel mu di aw ñam mu lekk ko ba noppi wëlbatiku sant yàlla ci loolu wala li nga xamante ni moom la ko yàlla xéewaleel ci ak naan mu naan ko bi mu ko naanee ba noppi wëlbatiku sant ci yàlla su boobaa suñu borom subhanahu wa taala da ko ciy gërëm kon naa nag koo xam ni dafa liggéeyal boromam subhanahu wa taala ba am ngërëmul boromam subhanahu wa taala wax ni man lam yarda amniya fal karim radiya ani ridan laysa yarim képp koo xamante ni nii gërëmuma itam yàlla moom gërëm na ma ngërëm loo xamante ni amut fu muy yem léegi kooku nag nga xamante ni dafa liggéeyal boromam ba am ngërëm loolu nga xamante ni moom la am ci borom te loolu kat dafa nekk loo xam ni ci ay ki jafe-jafe ki tiis ay nattu yëpp moom la jànkoonteel ba am ngërëmul suñu borom ndax waxoon na ko nabaatukum mahan ala kaddin bada lii qabla an araaridan mu abida yéen ñëpp kaay leen ma yee leen ci ab coono boo xam ne feeñ na ñeel ma njëkk suñu boroom borom dima wan ngërëm lii nga xamante ne dafa nekk ngërëm loo xamante ne lu sax dàkk la kon lu nekk dañ na ko ba noppi nag doog ko am ngërëm loolu nga xamante ni moom la ko boromam subhanahu wa taala gërëm waaw léegi nag Euh, suñu borom di ko fay léegi fay googu nga xamante ni moom la ko boromam di fay nag mu wax ni maam cantuk boppam lott na ci sant suñu borom ci li nga xamante ni moom la ko suñu borom defal léegi mu woote nag wax ni képp koo xamante ni sama mbég sa mbég la nag ma ci sant la yàlla subhanahu wa taala kon day mel ni cant googu mbokk yi suñ ci dee sant yàlla su boobaa dañ ci am ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala ndax anas ibnu malik radiyallahu an moo wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day dana gërëm ñeel jaam bi nga xam ne dafa lekk ak lekk waaw dafa am lekk goo xamante ne da koo lekk ah ba noppi wëlbatiku bi mu lekkee ba mu sant yàlla wala mu naan ak naan bi mu noppee ci naan googu ba noppi mu sant yàlla su boobaa suñu borom da koy gërëm ci cant googu nga xamante ni moom la sant yàlla ci loolu ko yàlla xéewaleel ba mu lekk ko wala li ko yàlla xéewaleel ba mu ko ba noppi mu wëlbatiku sant ci yàlla su boobaa loolu suñu borom subhaanahu wa taala da ko ciy gërëm kon ko gis ngeen sant ni nga xamante ni noonu la amee doole. ak cant itam mbokk yi ni nga xamante ni noonu la amee solo ak taxawaay bi nga xamante ni moom la am loolu moo tax asma bintu yasid dafa wax ni déggee na ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni saa yoo xamante ni nii dajale na dajale nañ ñi nga xamante ni ñooy ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi saa yu leen suñu boppam dajalee dana dana am benn wootekat boo xamante ni day ñëw woote taxaw ca kaw wax kaddu goo xamante ne su ko wootee mboolem mbindeef yëpp danañ déggandoo kaddu googu nga xamante ni moom la wax nen lan lay wax day wax ni yéen mboolem mbooloo mi fi daj yëpp ah, xam leen ni ñi nga xamante ni nii ñoom su guddi musaana jot dañuy wan ginnaaw seeni lal maanaam seeni wet dewuñu ko teg mukk ci seeni seeni seeni lal mooy ñi alxuraan doon wax ni tata jafa ma anil madaaji ñoom seeni tëdduwaay te mooy seeni wet dañ ko daan soreeleel la nga xamante ni mooy seen lal ya te mooy tëdduwaay ya nee na bu day wax ne ñooñu anañu su defee ñoom ñu daal di jug taxaw ñu nekk nag ñoo xamante ni ñu néew lañ na mu woote waat wax ni ana ñi nga xamante ni commerce wala am njaay déwut dox seen digganteeg ñuy dellu ci seen borom subhanahu wa taala su boobaa ñooñu jug taxaw ni ñoo ngi nii nekk mbooloo moo xamante ni mu neew leen nee na mu woote waat daal di wax ni ana ñi nga xamante ni nii ñoo daan sant yàlla ci jamono yoo xamante ne dañoo nekk ci mbégte ak jamono yoo xamante ne dañoo nekk ci naqar ak jamono yoo xamante ne dañoo nekk ci ay tartar wala nekk ñu nekk ay xat-xat waaye teewul lépp seen xel di delluwaat seen boroom ñuy sant yàlla subhanahu wa taala fu ñu toll ñu daal di jóg nekk mbooloo moo xamante ni mu néew lañ ñooñu dañu leen di sappi teg leen fee ba noppi nag ñi nga xamante ni ñoo des ci ca mbooloo ma su boobaa ñoom la ñuy sàpp waaye ñoom ñu nga xamante ni ñoom euh, su guddi musaana jot seeni duñ ko teg mukk duñ ko tëral mukk ci seeni lal su boobaa ñooñu duñ bokk ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy xisaab waaye ñi nga xamante ni tam commerce wala am njaay day dox seen diggante seen borom subhanahu wa taala su boobaa itam ñooña duñ bokk ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy xisaab waaye ñi nga xam ni dañ daan sant yàlla subhanahu wa taala moo xam ñi ngi ci mbégte moo xam ñi ngi ci naqar moo xam ñi ngi ci tartar moo xam nekkuñu ci su boobaa ñooñu itam kenn du leen xisaab dañ leen teg fee ba noppi ñu doog a xisaab nit ñi mbokk yi kon gis ngeen ni sant ñi mu amee solo ak nii mu baree njariñ kon ñu bàyyi ko xel ci santale sëriñ bi boroomam subhaanahu wa taala ci bis bi nga xamante ni moo nekk suñu kanam muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mbokki kon xam naa foofu la ñuy taxaw tey ci yóbbal bi jox leen dig dañ sala taala ci beneen yóbbal seen mbokku Mahmoudan Ndiaye loon fii ci Touba li gën ci noonu yàlla nañ suñu boroom defal te dëppale koogu li ñu gënal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar